tey rek ci xëtam gu njëkk ci leral point net màggal Touba avec sama réseau l'ARTP plus près de la population rek ak wàccaay li nga xamante ne mooy màggal Touba bi li nga xamante ne mooy réseau bii di sama réseau ginnaaw rek bu ARTP gën a jege li nga xamante ne mooy askan wi ngir rek ñu am connexion bu am solo rek bi ñu ñëwee ba nga xamante ne mooy aire de repos fi nga xamante ne mooy Bambay équipe bii di ARTP moom nag dañoo daal di taxaw rek ngir vérifier li nga xamante ne euh, réseau ba gannaaw rek li nga xamante ne mooy euh, opérateur euh, sur l'autoroute Ila tuba bi doxal nañ ko comme ni mu waree sukkandikoo ci nga xamante ne mooy directeur général Abdoulaye moom nag dafa daal di xamle rek ne dañoo daal rek amal ab numéro nga xamante ne rek dañ koy daal di def comme application ARTP ngir rek sama réseau képp koo xamante rek danga ngaa a xamle ni ni mel maanaam ay renseignement mën ngaa woote ñu daal di la xamal différents réseaux yi nga xamante ne rek fa daal di am waaye tamit ñoom i tamit ligi nga xamante ne mooy ARTP dañoo daal di rek euh, def ab disposition bi nga xamante ne maanaam logistique bu doy liggéey bi mën a jaar yoon laataa màggal gi waaye tamit bu màggal gi jàllee tamit yi nga xamante ne rek mooy benn yoon na ginnaaw ndax Orange dafa daal di rek renforcer lu toll ci euh, huit sites euh, de 4G plus ci euh, juróom ci seen ñoom rek ay permanent ci Expresso nag ñoom nag dañoo daal di rek lu toll ci 36 sites 4G jox li nga xamante mooy périphérie de connexion ci biir quartier yi waaye tamit ci lu toll ci pour cent tamit ak ay réclamations yi nga xamante ne ngir ñu mën ko couvrir ay ci ay sites yi nga xamante ne ñoom la clients yi di nekkee i déplacement